les institutions euh, madame la ministre de la santé de l'action sociale et ses collaborateurs chers collègues députés maa ngi leen di nuyu euh, madam la ministre jamono ji wax dëgg yàlla Sénégal faj bi metti na trop ndaxte population bi dañuy dundu ay euh, euh, kii yu metti ay jafe-jafe yu metti ci hôpitaux yi ak ci structure de santé yi ñu bëggoon nag nga taxaw leen bu baax pour que ñu mën a def seen premier soin yi nga xamante ne moom la ñuy faral di def ci hôpitaux yeeg ci structure de santé yi madame la ministre ba tey rek dafa am yenn dafa am lenn loo xam ne dama ko xaw a seetlu ci yenn ci hôpitaux yi parce que <laughs> malaat yi des fois dañuy ñëw di di dañuy entrer hôpital bu ñu entrer léeg-léeg dañuy toog ba ngoor ñu pousse teg leen seen chariot ñu pousse leen ba ci biti ñu gis ne bu ñu génnee li ñuy def mooy yalwaan pour li nga xamante ne mën ko jëndee seen ay ordonnance loolu aussi defe naa ne état aussi war na si ut ay jël ay matukaay bu ko defee malade yooyu nga xam te ñi ngi ci hôpitaux yi ñu mën leen a jàppale pour ñu mën a jënd seeni ordonnance ba tey rek ci boobu laay des ba léegi ak tamit ñi nga xamante ne léeg dañuy am malade seen malade génn àdduna euh, pour ñu jot ci koor bi léeg dafay xaw a metti bu fekkente ne dafa tombeek nag euh, jotoo sa sa loxo jotu sa ginnaaw pour nga jot ci corps bi dafay nekk problème te loolu aussi defe naa ne war ngeen ci euh, jàppale askan bi bu baax a baax a baax parce que comme da ngeen jël seen ministère toftal ci toftal ci euh, social bi te yàlla wax ne innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat zaalika zikraa liz-zaakiriin kon nag defe naa ne loolu les bonnes actions dissipent les kon nag war ngeen a góorgóorlu bu baax ci wàll boobu ba tey rek may desandi ci loolu euh, ci ci wàllu koor yi nga xamante ne moom la ñuy bàyyi foofu ndax defe naa ne kenn ku nekk ci ñun comme ni ko sunu borom waxee rek wa maa tadri nafsun bi ay yi ardin tamut ñun ñëpp kenn xamuñu fan la ñuy génnee àdduna kon nag ñu bàyyi xel bu baax a baax koor yi nga xamante ne dañ leen di faral di bàyyi ci morgue yi euh, may ñëwaat rek ci euh, euh, centre de santé yi nga xamante ne ñoo nekk Médina ak bu Gueule muy centre Elisabeth jouf ak centre Elisabeth bi nga xamante ne moo nekk Gueule Tapée centre Elisabeth Diouf bi nekk Médina vraiment batiment bi war nañ ko xoolaat parce que yàqu na trop ñooñu aussi war nañ leen jàppale ci ay matériel pour que nit ñi di mën a fajoo ci ci ci structure de santé yooyu Euh, bu weesoo loolu aussi polyclinique aussi soxla nañ ku leen jàppale ak euh, Abbas Ndaw waaw soxla nañ ku leen jàppale bu yàggul maa ngi euh, remercier le maire Barthélémy Diaz au passage parce que bu yàggul def na fa pose première pierre ci centre naw néonatologie bi nga xamante ne moo nekk foofu parce que réhabi fas yéene ko tamit réhabilité kon loolu aussi ñu ngi leen di ñaan ngeen jàpp nañ ci baax a baax a baax waaxiru daxwaanaa ani alhamdulilahi rabbil alamin